jàppaate bu metti bi am Sénégal te ñu gis ni lolu yàgg na am depuis 2012 président Macky Sall mi ngi jàpp ku ko neex di bayyi ko neex di instrumentaliser justice bi donc jaarale ko ci procureur mi ci région bu mëna doon jaarale ko tamit ci ay juge yi nga xamni ñom lu mu leen def lo rek ñu def ko wala mu jaar ci pexe yoo xam ne day tënk juge bi ba juge bi du mën a def lenn dul fekk si ko ci lim bëgg kon nag bi ci gën a siiw fan yi mooy li nga xam ne bàyyi nañ ko Pape Alé bàyyi ko Cheikh Omar Diagne bàyyi ko it Abdou Karim Gueye ginnaaw bi leen jàppee ay weer muy diir bu yàgg yàgg parce que doomu aadama bu la deful dara nga xañ ko liberteem ci diir bu yàggee noonu ba noppi xëy rek yalax ko ay ni ko demal te àttewoo ko pour wax ko lan la def mu mën a wone ni moom deful dara dañ koo jaay doole kon looloot lu ñépp war a na naqarlu la ndaxte ñett ñooñu ma lim koo ci jël rek da gis ni ku liggéeyal senegal la ku bëgg senegal la koo xam ni senegal rek moo ko ñor buñ jëlee Pape Alé taxaw nañ fu ne ñun ñi wax ne nan ko bàyyi ndaxte Pape Alé ñaa deful dara ab journaliste d'investigation maanaam journaliste boo xam day saytu ak di gëstu ci liy xew ci réew mi te nëbb te amal njariñ askan wi ñam amal njariñ réew mi nga xam ne du yem rek ci information bi ñëpp xam mais day dem tamit gëstu li nga xam ne ñu bëri xamuñu ko lu làqu lay doon wala lu ñuy nëbb loo xam ne bu ko waxee mën na amal njariñ réew mi journaliste bu mel noonu nga jàpp ko jaay ko doole ci tout simplement lu mu wax ci xalaatam ci réew mi wala mu wax loo xam ne naam nangu nga ne dëgg la waaye danga nga koo bëgg a xoqatal pour bu génnee dootu ci waxati ba tax na tey biñ ko jàppee ab diir bu yàgg moom Pape Alé ñaa jàpp ñaari yoon njëkk koo jàpp bàyyi ko mu génn dugg ci benn live wax ca am xalaatam nga ne noo waru woon a wax xalaatam parce que dafa nekk contrôle judiciaire alors que loolu mu def amul benn révélation bu bees bu mu def la mu rek la waxaat wala dafa wax lu sénégalais yépp wax ba bàyyi kon nag moom Pape Alé moom mu bàyyi nañ ko defal ko contrôle judiciaire maanaam tegal ko ay pexe yoo xam ni li leen metti woon ci moom mooy li muy wax ci réew mi ci dëgg loolu ñu noppiloo ko donc Pape Alé Niang koo bàyyi ba na bëgg koo noppiloo loolu nag li ma ciy wax rek mooy Pape Alé Niang ku ko xam-xam ni kenn mënu koo noppiloo liggéeyam kenn mënu kootee def parce que Pape Alé nekkalu fi kenn àndul ak kenn contrôle kenn mais dafa taxaw ci dëgg kon nag Pape Alé Niang ñi ngi koy wax ni ko ñun senegal gépp ñu ngi ci ginnaawam benn ko téyee ñépp a taxaw ni nan ko bàyyi parce que dañ koo jàpp ci jaay doole loolu nag du jóg rek am ko nga dugg kaso sénégalais yépp taxaw ni nan la bàyyi waa bitim réew réew yépp taxaw ne nan la baye ñu dem ba ci Nations Unies taxaw ne nan la baye parce que xam nañ dan la jaay doole sa liggey kot nga don def waaye defoo len lu ni téré koku pap ale kon yow na nga sant yalla ginnaaw bi nga gërëmee Sénégalais yépp nga dalu aslëf bo paré delu sa liggey ndax tayow kenn mun la xoxotal réew mi duñu fi nek kenn duñu fi jaay doole sen contrôle judiciaire yépp ay tapalé ko lal liñuy bañ moy pap ale nya di def liggey bam don def di leeral Sénégalais parce que ñom seen tappale yii nu nekk képp koo xam ne yaa ngi koy leeral ak boor boo mën a féete da nga leen di déranger buñ sañoon ñun ñëpp ñu noppi bàyyi leen ñu jaay doole def lu ñu bëgg a def daa di laaj seen troisième candidature euh, daa di organiser élection yoo xam ne dara du ci jaar yoon bu ko defee daan ne ñoo gañe daa di toogaat nguuruwaat pas pour toogal sénégalais yi parce que nguur gii fi nekk képp koo xam ne nitu dëgg nga xam nga ni nguur gi nekk lu fi sénégalais yi nguur gii fi nekk boppam la fi nekkal. ak France président de la république Macky Sall bopam la fi nekkal ak ay mbokam ak ay jegeñaaleem ak gouvernement bu France mais nekk lu fi kenen donc ndolal sénégalais yi ak tek len ay fitna motax Macky Sall ñew au pouvoir té lu mu fiy gën a fitna yi di gëna di gëna yew ci réew mi jafé jafé di gëna am ci réew mi sénégalais yi di gëna son li moy donc pap Alé Niang motax ñu téye ko ci kasso bi pour bëgg dossier yi mi wax té ñom ñu tuddé ko ay dossier sensible muy ay dossier yo xamné da leen di yakal nam pap Alé limi wax dara du ko dindi mais comme ñom dañuy bañ mu yakal leen motax mom pap Pape Alé Niang ñu jaay ko doole téye ko ci kasso bi mu génn ñu jappat ko ci lo xamné dama ko tuddé enlèvement parce que nin koy jappé sax jaarul yoon dañuy toba ci rek dem bett ko japp ko duggal ci kasso bi tout simplement parce que pap Alé ñaan day wax ci dossier yu leen arrangé wul dossier bi nga xam si nag moo tax ñoom fi mu toll nii ñu bañ pap Alé wax bañ teg ko contrôle judiciaire du benn dossier bu dul dossier boobu nga xam ne mooy enquête interne de la gendarmerie nga xam ne général Tine moo ko deflu woon mu leer nañ ni li xewoon ci dossier suite Beauté bi donc ñu jëloon benn jigéen bu tudd aji Sarr ñu utiliser ko pour tuumaal siif benn leader opposition bu tudd Ousmane Sonko boo xam dañ koo ragal pour 2024 xam ne sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom moom lañ bëgg a dénk réew mi ñu tiit ni kooku bu bokkee day ñoom da leen da nara làpp làpp yu metti ñu daan ni kon nañ wuti pexe pour taqal ko léegi nag dossier boobu la Pape Alé Niang teg ci table ji ginnaaw bi mu amee rapport bi nga xam si moo tukkee ci ño juróomi gendarme yooyu nga xam ne ay gradé lañ yoo xam ni seen kilifa général Tine moo leen dénkoon liggéey bi ñu déglu ñëpp. déglu général Mbeng euh, ou le commandant Mbeng déglu tamit ñun ci war a déglu ñëpp déglu capitaine Touré déglu ñëpp ñun ci war a déglu wax waxal seen bopp ñoom gendarme yooy def saytu boobu ci rapport bu leer nañ ni capitaine toure li ñu ko doon jiiñ ni moo sennal PV boobu nga xam ne moo jóge woon ca section de recherche loolu ñu wax amul donc capitaine Touré deful dara def na liggéeyam normalement kon dañ koo jaay doole dem dàq ko sax ci liggéeyam ba noppi di ko di ko di ko xoqatal loolu la rapport bi génn ba noppi rapport bi génne ni le parquet à l'époque le procureur Bassirou jiite woon ko ñoom ñoo nekkoon ci complot bi ndaxte parquet bi moo soppilu euh, le PV d'enquête préliminaire maanaam fañ doon dégloo ñi nga xam ne ñoo laale ci mbir mi ba mu desoon rek Ousmane Sonko ñu patam patame woon dossier bi tëj ko bañ ko tëjee ñu jébbal ko procureur Bassirou Gueye rapport bi moo ko wax ne Bassirou da koo xool xam ne lii. leen ci wax taqalul Ousmane Sonko mu delloowaat ko commandant Mbengue ni ko lépp lu ciy taqal Ousmane Sonko bàyyi ko ci lépp lu koy setal na nga ko ci dindi ba noppi dooleel ma ci photo yu bon yii nga xam ne ay xale yuy futteeku la yoo xam ne dañuy jaay seen bopp buñ ko waxee sénégalais daan ko gëm malheureusement la ko leeral ni moom loolu mu doon def ci ay tappale la ko doon def mooy suite massage la jële photo te loolu beneen salon la bu nekk ca ginnaaw fédération sénégalaise de football nga xam ne laalewul dara ak Sweet Beauté bokkuñu sax jegeyowuñ sax loolu lépp kon mu leer ni danoo soppi PV enquête préliminaire bi te ki ko def mooy procureur bi fi nekkoon Bassirou Guèye kon nag lii la Pape Alé Niang leeral nañ mu metti leen mu teg ko ci wolof yu leer nañ sénégalais yépp comprendre ne kon lii kat ab complot bu leer nañ la lépp wane ne ay waajal ak ay autorités yu nekk di tappale pour di jéem a faagaagal ab leader opposition boo xam dañ koo ragal deux mille vingt quatre lii la Pape Alé Niang génn mu metti leen yeneen yi nuy wax yépp ay ay ay ay document Oscar Sierra baak yooyu tappale la parce que boobu Pape Alé Niang génnoo ko ñépp ko amoon bii tamit Pape Alé Niang génnoo ko ndax Sonko moo ko def jox juge d'instruction bi def ci conférence de presse Pape Alé nag tegkel ko Sénégalais yi ñu bëgg koo jaay doole tëj ko ci kaso bi ba mu neex leen ñu bàyyi ko mu ñibbi këram kon ñu ngi koy wax moom ba Pape Alé ne ko bu na ginnaaw bu noppaloo ba pare na delluwaat ci liggéeyam parce que fii kenn mënu fee xoqatal kenn kenn mënu fee tee nit ñi ñu wax leenu xalaat ci réew mi parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk président ma Sall lii muy def nit ñi bu ñu ko defoon du nekk mu ko président de la république jaay dooleem bii mu nekkee képp ku ko képp ku nekk nitu dëgg da ko war a naqarlu képp koo xam ne bëgg nga ko yéen a nga Sénégal jàmm da ko wax dëgg ne ko na arrêté parce que jaay doole rek la fi nekk nekkewu fi leneen kon nag lii bëggoon naa ko wax teg ca nag ni bi ñuy libéré également euh, ñu libéré waale euh, Cheikh Omar Diagne libéré waale Abdou Karim Gueye a ah, Abdou Karim Gueye nag moom bi ñu koy libéré mu ne moom du nangu mukk signé contrôle judiciaire bi wax na dëgg ndaxte contrôle judiciaire bi tegul ci dëgg ci jaay doole rek la tegu ak bëgg leen a napp bu ko defee weer wu ne nga daal di dem ca tribunal di signé di wane ne yaa ci réew mi alors que koo xam ne mosuñu koo gis mu bëgg a dem fenn dawul demul dikkul waaw soxnaam sax bu dee basi euh, ku ci mel ni Abdou Karim Gueye am na soxna sax France te taxul mu dem toog France te bu ko neexoon dem toog France parce que am na possibilité bu demee France toog fa waaye fu mu demee seeti soxnaam day ñibbisiwaat nekk ci xeexal réewam nekk ci taxawal Sénégal kon nag kooku boo ko defee contrôle judiciaire pour lan la lan ngay doyee contrôle judiciaire lu dul bëgg koo gis-gisee bëgg koo jaay doole bëgg koo xoqatal pour que peut-être mu noppi ni ko léegi. yow am na lu tegu sa ndodd loo xam ne boo ci waxaatee rek ñu tëjaat la ci kaso bi donc ku xam Abdou Karim Gueye nag xam ne du ko ñuy napp li mu gëm lay def euh, ak stylam te jàpp naa ne euh, ñoom bu dee loolu lañ ci jublu mooy noppiloo ko ba dootul ñemee wax ci réew mi euh, wax dëgg yàlla ñu ngi nax seen bopp ndaxte moom kenn munu koo tee wax li mu xalaat ci réew mi Cheikh Omar Diagne la même chose nit la koo xam ni même boo ko defee sous contrôle judiciaire nit ko am fit la nit ku am xam-xam la nit ku am taxawaay pour réewam la kon kenn mënu koo tee wax xalaatam ci réew mi kon Cheikh Omar Diagne aussi nañu xam ni mun ñu koo xoxotal mun ñu koo jaay doole bu delloo ci këram ba nopp lu ba pare kenn mënu koo tee wax xalaatam ci réew mi